ko waxee euh, émission bi Adama nee na émission la donc dañ ko koy nangul euh, Adama actualité yaakaar naa ne weesuwul euh, kàddu yi premier ministre yëkkati keroog ca Grand Théâtre dimanche mu fay amal conférence publique boo xam ne jeunesse su partem ñoo ko organisé woon boobu ba tey nag coow laa ngi ne kur yow lan nga gën a jàpp ci kàddu yi fa premier ministre en fait président Pastef parce que en tant que président Pastef la fa dem Ousmane Sonko. dama lay xaw a corriger tuuti rek. parce que nekkuloon conférence publique. lan la woon. parce que barab ba mu doon defee. lan lañ fay def d'habitude ay soirée ki yëpp mais. concert bërëb la boo xam ne war na mën a def comédie théâtre moom la fa defi woon. nan la fa woon defu fa leneen. li nga wax nii moom la defi woon. devant ses fans du leneen lu dul loolu parce que ña fa woon ay fansam la ña fa newoon ce ne sont pas soo sénégalais. ce ne ah, sont ah pas des ce sont les fans. ok de Ousmane Sonko comme acteur. théâtral toog jël micro takk di wax ak ay fansam kenn mënu koo bañ nag am na ci droit il a bien choisi le lieu lieu ba mooy grand théâtre qui est un lieu par essence réputé pour accueillir des manifestations des de, de des danses du théâtre uniquement du leneen maintenant nag lam fa wax du ñu bett lépp comédie la woon lépp théâtre la woon ay contre-feu la bëggoon yëkkati pour nit ñi fàtte dëkk bi nga xam ne dafa jommi fi mu ne nii bay waaj a fay nest pas parce que nag soo leen seetloo àdduna lépp opinion la l'opinion te pas favorable à ce gouvernement la surtout moment bi nga xam ni dañu nekk ci période waajal tabaski coow di bari mu am ay engagement yu leen diggoon yi nga xam ne dañ ko jëloon moom mu am liggéey yu ñu ko santoon moom ne ko premier ministre préparel plan d'urgence wala ci communiqué conseil des premier ministre préparel rapport boo xamante ne da koy déposer table président de la république le 15 avant le quinze mai pour ñu wàññi njëg yi kon moom jotul liggéey mu dem taxaw ca grand théâtre pour nit ñi fàtte loolu mu wax fay déclaration di xaste di saaga di menacer weesuwul keroog ba ñu jógee avant ñuy dem ca set setal ba moo defoon vidéo na ci jour set setal ba moo ne nañu bàyyi xuloo yi nañu bàyyi xeex yi nañu bàyyi xaste yi nañu bàyyi saaga yi parce que réew mi suñ ko bëggee defar dañuy tàpp xol yi bokk ndey bokk baay Sénégal gi yëpp tàccu moom moo ñëwaat Grand di xaste di saaga di menacer di wax wax ju ñaaw walla di attaquer journaliste. Hmm. di attaquer l'opposition bi nga xam ne kenn déggu leen ñu wax di waxaat keneen wala donc moom li mu waxoon sénégalais yi nekk nañ ko bàyyi moom moo ko tàmbali loolu tax ma ne la dafa ñëw ci barab boobu pour def théâtre pour def théâtre maintenant nag du ñu bett xamu tax nag du ñu bett parce que lu ko gën a metti ci àdduna moom moo fa xamoon xam nga lan la hmm. li ko metti mooy lépp lu mu doon wax mooy li nit ñi doon wax ci li koy nit ñi doon rappeler dans ses communications d'hier Ousmane Sonko a peur de la VAR parce que ay VAR ci ay VAR la oppose la nit ñi taxaw di ko ko rappeler moom moo ko merloo ba mu sorti dans ses ba joxe fa ay information yi importante lu nit ñi desalewul nag dans ces informations mooy première information ministre de la justice su dara xewee Sénégal dafa may informer ma xool décision bi ñu ciy jël. deuxième information mooy am na ay bailleurs yuy bat yuy jóge bitim réew di attérier ci aéroport di ñëw di ma seet si di delluwaat voilà. troisième information mooy mbirum eurobond bi lii la ak lii la ak lii la man loolu maa ci jël quatrième information mooy jeunes yi ñun xamuñu fu ñu jëm ak yéen da ngeen di dem ci àll ba dem bay yi waa si les informations qui sont là-bas information yéen journalistes yi liberté de la presse dootu loolu am jeex na kenn dootu ko nangu. loolu la wax. mu delloo leen dóor leen comme yi ii yéen journalistes yi delloo leen dugal leen ci pot tëj ne leen dootu leen demati internet jëli information comme moom ni mu doon demee internet. jëli information loolu la fa wax maanaam li mu ko li ko li ko ragalloo li mu doon wax ba pare ma ne kenn du ma vaar sama waxi démb mooy sama waxi tey ca jour ba ñu segal ñu tegal ko cinquante vaar ci ay déclaration donc il a peur on a vu une personne qui n'était pas serein qui n'était pas sereine on a vi une personne qui n'était pas tranquille dans a peau on a vu une personne boo xamante ni xelam dalul ci lu bari parce que ragal na ragal na il a peur moo tax mu taxawee noonu deuxième chose dernière chose ci li ma war a évaluer mooy l'échec de la mobilisation du PASTEF. mbooloo ma fa ne woon bëriwul. demoon nga Kër Massar yaa ngi koy fàttali. Kër Massar dew ma woon de waaye seetaan naa ko. yaa ngi ko doon seetaan seetaan nga Akapes seetaan nga Mbàkke Grand Théâtre kër sam dimanche amul 3000 personnes. Hmm. y avait pas 3000 jeunes. des poche vides. Souleymane Ndiaye bu S2D sax moo ko ëppoon mobilisation ça veut dire que nit ñi fal nañ ko ba pare wan ko gannaaw beneen on nous dit ce sont des patriotes jour boobu mu woote équipe nationale bu Sénégal moo doon football drapeau bu Sénégal doon woote loolu mooy wane encore leur manque de patriotisme émanant du de Ousmane Sonko. sixième et dernière information mu taxaw taxaw ba yàpp suñu président de la république yàpp suñu président de la république bay tuddee suñu président de la république sëriñ Kunda. loolu seen biir lañ ko doon waxante bu yàgg. mënoon seen biir. daf doon bëgg wane ne rek xëy na mu won askanu Sénégal léegi nag ku mu neex dootul waxati Bassirou Diomaye danaan sëriñ Gunda lu koy waaj di mayal yabeel la jël suñu président de la république ñàkkal ko fayda. réduire ko à la plus simple expression de président de la République Ousmane Sonko a réduit notre président de la République à sa plus simple expression de président de la République ba pare tuddee ko Serigne Gunda donc sénégal yi désormais bu kenn waxati Bassirou Diomaye Diakhar fay na nga ko woowee Serigne Gunda parce que nitam di premier ministre am moo yàpp askanu Sénégal yàpp Sénégal yàpp citoyen sénégalais yi bay jël suñu président de la République di ko tëgg tuddee Serigne Gunda loolu moo xew grand théâtre loolu tax ma ne la comédie show am la doon def parce que la ma fa wax yooyu yëpp amul dara lu ca ñor askanu Sénégal waaw wala déet lan ca la ma doon wax est-ce que tax na njëg wàññeeku déedéet ca la ma doon wax est-ce que tax na xar yi wàññe xar yi wàññeeku déedéet ca la mu doon wax est-ce que tax na pomme de terre wàññeeku déedéet ca la mu doon wax est-ce que tax na courant wàññeeku déedéet ca la mu doon wax est-ce que tax na jeunes yi suñ fa jaaree am xëy déedéet ca la mu doon wax ban sénégalais moo ci gis boppam kenn. neel yow gisoo ci sa bopp Adama bul dugal sénégalais yépp xëy na ñii fi toog nii sax am na ñu ci gis seen bopp yow tam ah munoo wax. dama ne suñu ñëpp nag. la doon wax amul dara loo xamante ni dina yokk suñu gafaga saa saa yu xëyee bu ma wax nag ni chef de parti la. bu ko kenn wax chef de parti la kay. c'est nag ay kii am dafa neex ah. nag de moom day wax ba pare di contre. muy contre réponse yi ñëw. parce que mu ngi ne bu ma kenn chef de waaw xam xam nga tax comme nee dama ne bu ma kenn wax chef de parti la. mais président parce que moom moom taxawee. waaw waaw président du toog ne rapport a ngi sama bureau. boobu da doon information président Pastef du toog ne ministre de la justice moo ma envoyé vidéo ministre de la justice kan lay envoyé vidéo le président du Pastef wala le ministre de la le premier ministre. du Sénégal premier ministre. ta bureau rapport bi nekk ci kaw bureau bureau kan lay ne. bureau PM. est day nekk ci bureau président du PASTEF c'est lui en personne qui n'a pas fait la dichotomie entre les deux personnalités donc su nekkee deful dichotomie bi deful la différence entre les deux personnalités li mu doon wax foofu amulul benn njëriñ askanu Sénégal. parce que taxul dépense wàcc yomb amul taxul njëkk yomb wàññeeku taxul taxul taxul taxul taxul. mais est-ce que Adama Fall est loolu du sa du sa gis-gis ak sa ak sa ak parce que moom en en tant que premier en tant que euh, président bu PASTEF. ba mu wooyee ñi nga xamante ñoom ñoo di ndaw Pastef muy jeunesse jeunesse patriotique euh, wax nga ci lu bëri loo xamante ni décelé ko peut-être ci ay manquement yoo xamante ni Ousmane Sonko def na ko mais est-ce que jàpp ne nangu ne également Ousmane Sonko am na loo xamante ni euh, xëy na génne na ko fa xamante ni c'est positif par rapport ak li nga xamante moom di jeunesse bi parce wax na leen dañuy delluwaat ci li nga xamante moom di agriculture c'est quelque loolu c'est c'est quelque chose boo xamante ni sénégalais dañ ñu ngi koy xaar réduction des comptes wax na ko li nga xamante moo di jeunesse bi assurer leen que ne li nga xamante ni ñoom ñoo jël alalu réew mi danañ rendre compte mais loolu c'est des c'est des actes yoo xamante ni yu positif la yoo xamante ni ñu ngi ko doon xaar ci moom yaa ngi wax également show la man jàpp naa ne du show wax nga également ci mobilisation bi mais peut-être contexte bi nga xamante ni moom la ko defee euh, parce que damay ñu ci élection présidentielle ba léegi Ousmane Sonko deful benn rassemblement boo xamante ni woote na ci euh, lu toll ne manifestation bu toll noonu donc c'était logique tey Ousmane Sonko woowaat na ay ndawam rassurer leen par rapport ak li nga xamante moom moo di fi ñu jëm ci li nga xamante ni moom moo di cinq mais jàpp naa ne am na ci lu am qualité loo xamante ni wax na ko en face li nga xamante moom moo di jeunesse patriotique. et puis côté mobilisation sax c'est JPS qui a organisé. donc ce sont juste les jeunes du parti PASTEF mais euh, Kër Massar bi ngay wax y avait les euh, sages y avait tout le monde euh, ak ñoo xam ne sax xëy na ay sympathisants la ñu. ma tontu la ah, tontu ma. grand théâtre ña fa newoon c'était le parti c'était pas seulement les jeunes. ba tey. du dëgg. Ah. c'était le parti. mais Kër Massar du benn capacité capacité mobilisation bu PASTEF. ba ñuy nekk opposition ñun ñëpp xamoon nañu et ça faisait peur à tout le monde. kon Poulel dafa wàññeeku. mais attends. lan moo xew si diggante bi Adama ba seen capacité de mobilisation di wàññeeku. un président de ou bien un parti qui arrive au pouvoir une fois élu par cinq pour cent de son électorat par rapport aux actes qu'il pose. kenn du ko tere c'est scientifique donc aujourd'hui lépp ñu bari ñu àndoon ak ñoom ñàkk nañ leen. par rapport aux actes bu ci bari. parce que du nag du tout le monde bokkoon Pastef hmm. du tu du ñëpp du électorat bi yëpp nag. ñoo bokk la majorité ñi leen fal bokkuñu Pastef. du ñoom ñoo leen fas mais ña daan dem ca manifestation ya damaa jàpp ne dañoo bokkoon Pastef. am na ñoo xam ne combat wu Sonko rek moo leen. doon yëkkati waa déglu rek waa déglu rek. dama ne dañuy toog seen kër. dañuy toog seen kër kon bokkuñu ca parti ba. kon mënoon nañu wax ni mobilisation bi c'était pas le le passé donc su sooy waxee noonu rek da ngay comprendre li maintenant nag maintenant nag maintenant nag ci déclaration dans les de la déclaration des déclarations parce que ñoom en tant que parti dañu defoon vacances citoyennes demandé na à ces jeunes du parti du parti d'aller faire des vacances citoyennes na ko yemale ci parteem la jeunesse sénégalaise dépasse les jeunes du parti voilà su ko dépendé des jeunes du parti du am la majorité de la jeunesse sénégalaise ñun ñëpp d' accord nañu pour avoir une une souveraineté alimentaire il faut aller vers l' agriculture mais ça c' est pas le le chef du parti qui doit le dire c' est le premier ministre de la république du Sénégal qui doit le dire et demander à toute la jeunesse sénégalaise d' aller vers l' agriculture mais encadré d' une manière encadrée et d' une formelle moo tax ma ne la comédie show la doon def déclaration politique la du ma ko ko bañal. Hmm. du ma ko ko parce que il était dans son dans sa lu ma ko bañal donc toute position bu mu am sur ce sur ce plan politique dama ko dama ko koy dama ko koy nangu parce que aussi moom moo xam ne muy wiccaxee bopp jëlam mais ca coow la coow la coow la yépp ba njëriñ la amal ci jën ban jeexital la am ci jeune boobu taxawoon démb waroon régler problème mu tabaski tabaski ban njeexital la am ci moom est-ce que on lui a soo demee ca daral bee xar ba dina jar cinq est est-ce que on lui a soo demee ci barab bee di nga fa. jaral mais Adama rencontre politique mais Adama rencontre politique musul faj yi ngay wax nii. franchement ah? rencontre politique un premier ministre qui parle. qui porte l'habit du chef de parti qui parle qui va donner des orientations. yi ngay wax ni conseil des ministres ay orientation non ay orientation paasewul sax ay orientation paasewul. mu wax cette jeunesse la nañu dellu dem ci li nga xamante moom moo di agriculture orientation passe passe passewul ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ndaw ñi nga xamante dañuy insulté mu jàpp ne dañoo bokk Pastef mu wax leen nañ nañu arrêté loolu te ñu dem liggéey mais loolu orientation la orientation mënul passé loolu Adama Fall lan nga bëgg ban ban orientation nga bëgg na Ousmane Sonko joxe. Fatou dama ne. bu daanelee a pris beaucoup de notes. Cheikh bëggul bëggul daal ah. du ma non non non su la neexee nga jël parce que yaa ngi sa sa gémmiñ gaa ngi mbir mbir jëlal. Euh, sëñ Arona maa man moom damay jël dama lay ziar mais <laughs> euh, encore une fois. Ah, euh, nañu gis ne nii d' abord le contexte nee nga grand théâtre